الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب, أصحاب السماحة المشائخ أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب الفضيلة آل الشيخ الخديم معالي الوزير الممثل لفخامة رئيس الجمهورية السيد أنطوان فليكس عبد الله جوم والوفد المرافق أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي أيها الإخوة الحاضرون من كل فج عميق أيها المريدون أيها الإخوة ممثل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجلس المدني أيها المريدون وأيتها المريدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم جميعا على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الوحدة بين المسلمين على اختلاف الانتماءات المذهبية والمشارب الفكرية قال الشاعر ورثنا من الآباء حفظ ودادكم ونحن إذا متنا نورثه الأبناء ويقول أبو المحامد الشيخ أحمد الخديم المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات أيها الحفل الكريم إن تخليد ذكر الغيبة البحرية له دلالاته ورموزه ويقطر دروسا وعبرة ويعود بنا إلى تصفح أوراق حالكة في التاريخ الإنساني لقد واجه الشيخ أحمد بامبا القوة الاستعمارية من خلال جهاد سلمي مبني على الصبر الجميل والصلابة في العقيدة والثبات على المبدأ والمسابرة على الحق وتربية المريدين على العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي فقابل الإساءة بالإحسان وعفى عن, وعفى عن الظالمين يقول ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد بلاء وجهاد ضعفا أيها الحفل الكريم إن حياة الشيخ أحمد بامبا كلها وأقواله وأفعاله وأحواله تجسيد حي لإسداء الشكر إلى ربه عز وجل يقول يشكره كلي بغير ددني إلى جنانه وصفى ديدني لك شكور ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم ويقول شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلاه كليتي استغنت عن اشتكائي وكل ما يجر للبكاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu sëriñ bii toog mu sëriñ abul baraka ak njabotou cheikhul khadim ñom ñi fi téwal sahibul fadil a mohammed al muntaqa di nuyu kilifa diine yépp genn kër desul di nuyu ñi nga xam dañu jité ay mboolooy l'islam liggéeyul diine di nuyu tam euh ministre bi nga xam ne moo fi teewal ki jiite réew mi muy monsieur Antoine Abdoulaye joom ak mbooloo mi mu àndal di nuyu tam gan ñi nga xam ne ñooy corps diplomatique nekkal fi seeni réew ngir rattaxal seen diggante réew ak ak di nuyu itam parti politique yëpp bàyyiwuñu benn di nuyu itam jaamur yi nga xam ne dañoo tëdd njaaxaanaay bokkuñ ci benn parti di nuyu tam njabootook mag ñi nga xam ne seeni maam ba dara dul dara seeni maam ñoo àndoon ak Cheikh Ahmad Bamba te mosu ñoo wàcc tànk yi seeni maam jaaroon waaye tam nag di nuyu mboolem mbokk yi teew ci bis bi ak ñi amoon yéene teew te mënuñoo teew di leen sant di yëkkati kàddu yoo xam ne nag ci ndigalu sunu kilifa gi mu Cheikh Mouhamadul Bachir di sant mboolem ñi teew teew gi ngeen teew am na lu mu wane mooy day wane ne jullit ñépp benn lañu seeni ëtt mën naa wuute seeni naanukaay mën naa wuute waaye ñépp benn lañu te lii du tey ci ay maam la won ak i baay wax naa ko léegi warisna min al abaai xifda widaadikum wa nahnu ida mitna nu warisuhu am abna te Sëriñ Tubaa nee na yéen yéen ay mbokkam bokki pas-pas ñooy ay mbokkam al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat kon yéenay mbokki pas-pasam ñëw ngeen ci bisam di ko santale yàlla kon sëriñ bi mi ngi leen di mi ngi mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm bis bii ñuy fàttaliku nag ku xalaat xalaat ca ginnaaw da nga xam ne bis la woon yu metti bis la woon yu tiis ndax dafa am ay jàmbur yoo xam ne dañoo jóge bitim réew joox ci réew mi àndaale seen lépp nag seen culture seen civilisation seen xam-xam seeni gànnaay seen lépp ñëw not sunu réew bi ñuy not réew mi nag am na mag ñoo xam ne dañoo taxaw jàmmaarloo ak ñoom ndax mënuñu nangu kenn ku leen moom ku dul yàlla mënuñoo tam wàcc yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàlla Sëriñ Tuubaa nag jàmmarlu ak ñoom ñu koy teg ay coono mu di ko muñ kon ñoom ñi ñëw dañ fay fekk koo xam ne gaynde la ci fit gaynde la ci jom gaynde la ci ñeme mësta wàcc yoon fi yàlla bëgg mu jaar fa rek foofa lay jaar mu jàmmarloo ak ñoom mu muñ ko rafet téye pas-pasam teg tànkam fa ko sangam ba tegoon alayhi salaatu wasalaam di yar ay taalibeem ci sàkku xam-xam ak jëfe xam-xam ak jaamu yàlla ak defar seeni jikko muy makaarimul axlaaq ñu tooñ ko tooñ koo xam ne ñépp ko mën a seere ne dañ koo tooñ waaye tooñ yiñ ko tooñ moom dafa jéggale dafa baale ndax nee na man mi ngeen jàpp génne ma samam réew tas samay kër tas samay daara tas sama mbooloo da ngeen maa tooñ وظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق kon dañ koo tooñ waaye dafa jéggale yëmul ci jéggale dana taalibe yi na ngeen moytu di tooñ na ngeen maytu di moytu di fayu kon taalibe sëñ ta tooñ sëñ ta fayu daal na kuy tooñ du mucc kuy fayu tam du ñoŋ mbokk yi sëriñ Tuubaa nekkam gépp waxam yëpp jëfam yëpp mbiram yëpp dañu doon sant yàlla yashkuruhu kulli la wax bi xayri dadani ila jinaanihi cant goo xam ne dara ci safaan du ca rax fukki weer yeeg ñaar yëpp da ko doon sant yàlla laka shukuru rabbi min min muharrami li xatmi zil xijjati tam xarit ba tabaski da koy sant yàlla li tax nag mu jàmmarloo ak tubaab yi mënuñ ci moom dara mooy moom dafa wax ne yaakaarul kenn ku dul yàlla rëgalul kenn ku dul yàlla fa lastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jàlla yuxniini wa yunjiini li may ragal yàllaa ko mën a fànq li ma bëgg yàllaa ko mën a faj kon duma ma yaakaar kenn duma ragal keneen dem na sax ba ne li ma war lépp def naa ko ba def naa loo xam ne sax mënoon naa ca bañ a àgg اللي هو التزمت ما علي يلزم وراض لي لزوم ما لا يلزم moo tax nee na yàlla mi ma jox sama lépp jox na ma loo xam ne as mbu mbu mbuur du ko am as mbuur ndax yàlla mooy buur bi kurul yàlla as mbuur nga lillahi jalla yadi wal qalbu ma badani wa saaqali fawqa ma inda sulaytini moo tax sëñ Musaa Ka waxoon ne كنوك فتال اك كارواس دوتا جاسي دوتي سيرن توبا دي واي جيناسي جيناس سيرن توبا نينا من سانت لا تال واي دي فاتليكو لي خيو سما ديغنتك توبا بي تالوموكو شغلت بالشكر ان تذكري ما قد جرى بيني وبين العسكري واخنا نا صاح دي فاتليكو لو خامني داي تويال خول te bu xol yi tooyee bët yi tooy matu ko moo tax mu ne kon nañ sant saa bis bi ñëwee nag sëriñ bi yëkkati ay kàddoom woo ñëpp woo taalibe yi woo wëllëre yi woo bokkam yi woo dëkkandoo yi bitim réew dañuy ñëw ren li ñëw mat na téeméeri délégation te am na ñoo wax ne li teew Tuubaa ci màggal gi jege na 6 millions defe naa ne ajug màkk sax matul 6 millions kon ñi nga xamne ne ñoo teew muy délégation yi sama mbokk sama xarit serigne abibou Mbay momay momay aw moo koy lim ndax serigne bi dafa xamne xawna 10 waye dana ci jukki rek al al almalikiya wa kër al alxaaji malik lu xew touba kenn kenn kenn ci ñoom du dess sëriñ Babacar Mansour day yeble yebal na Sidi Ahmad si Cheikh Sidi Ahmad si ak Dabbaax moom suñuy waajur alxaaji Abdul Aziz si mu ànd ak mbooloo mu bari al usra al umariya khalifa bu nekk Louga yebal na Cheikh Ahmad Tidiane Taal waaye itam Thierno Madane yebal na Omar Taal kon ñoom itam ànd na ñoom ànd na ñoom mbooloo waa Njaasaan خليفه بجبلنا الشيخ ابو محمد الكنتي ولاين دون في غان سينا اساغني داكارلو اك سيرن بي تيانابا اك ليونا نياسن اك مدينه باي نيوم تي فان يالي لا نيو دا نيو تيلا نيو تيلا غيس سيرن بي تيلا زياره تيلا وانيكو اوبوزيشن بي تام سيرن بي واخنا ني نيوم نييب نيو نانيو waye dañ cey jukki rek maître ab Ablaye Wade yabal na mbooloo buggaan mi toog di taalibe ñëw na ànd ak mbooloo waaye commune bu Touba maire Touba muy ab laxat Ka def na ci bis bi loo xam ne eh, at mu jot sëriñ ba Basiiru da koy seeral ñëpp waaye at mu jot mu yokk loxoom def lu raw la nga xam ne moom la daan def waaye kuy liggéeyal sa bopp doo sonn kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moom laa doon ubbee dalal gan ñi ci turu sëriñ bi ak ndigalul sëriñ bi yéen ñëpp sëñ bi mi ngi leen di tàllal loxoom di leen di dalal di ubbi xolam bala moo ubbi ay loxoom di leen sant di leen gërëm di jox nag sama rak sëñ bu Mbaye moom yi nga xam ne mooy lim euh, euh, délégation yi defe naa nag tey di la 5 septembre hmm. loolu moom dama koy bàyyee ak sëñ Bachir loolu moom du ma ci dugg waaye ku ne xam na tey bés bi bés la ci bés yi wasalaamu aleykum wa wa barakatu